Plus Actu yi seen xibaar si Rio Plus ziar baax amee cheikh internet ñu dooree jotaayu xibaar bi ak li nga xam ne euh, mooy euh, marathon budgétaire bi nga xam daan nay doora si alxames gi foofee sa pencum ndaw réew ma ñu a voté gafap réew Sénégal ak jëwriñ ngi ñu dénk wàllum euh, doon jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy député yi boo xoolee la ñu jot a voté gum si alxames gi bokk na ci la nga xam ni la gën a duuf sa nag ba li nga xam ne mooy pouvoir public yi daal dañu koy jël ndaxte président Seck li nga xam ne mooy budget ma nga toll ci 71 milliards ak lu ko toftal nga xam ni mooy pencum ndaw réew ma euh, pencum ndaw réew ma di assemblée nationale ñoom seen budget ma nga toll si lu tollook euh, vingt milliards ak lu toftal ka nga xam ne mooy li nga xam ni mooy fa nga ma yoon di euh, cour suprême moom daanaka boo xoolee ak cour des comptes ak conseil constitutionnel kenn ki budget a nga toll si ñetti milliards kenn ki budget am toll si benn milliard keneen ki budget am toll si li nga xam ni mooy fukki milliards loolee la ñu voté gum foofee sa pencum ndaw réew ma nit kii ci alxames gi yemook li nga xam ni euh, mooy euh, fukki fan nag juróom-ñaar di la 17 novembre ñu doon euh, voté li nga xam ni mu door li nga xam ni mooy li nga xam ni mooy gafak réewu Sénégal ñu daal di koy door jëwriñ yu si nekk dinañu jaar foofee jàkkaarox député yi défendre nga xam ne mooy seen budget bu atum 2023 ñu gisoon tamit ay coow daa dafay jotoon jukk si diggante li nga xam ne mooy député yi fare si kujje politique yeeg ñi nga xam ni ñoo nekkee ci pouvoir ba daana ko démb assemblée nationale daal dina yëngu ba jotoon sax ay jàppante jàppale waaye loolee lu ñuy nemeeku la si réewum démocratie si péncum ndaw réew ndax géey li nga xam ne mooy gis-gis yi dafay wuute lool te la daanaka foofee la ñuy desandi ba tey ak ki nga xam ni mooy euh, député bi di euh, député bi di Mamadou Lamine Keita fare si kujjee politique yi moom mi nga xam ne ne jël plainte daal di koy jibbal contre x ndax jàpp na ne li nga xam ni mooy règlement intérieur bu assemblée nationale dañ ko falsifié te loolee euh, yoon mayoo ko te duñu ko nangu dana jël plainte daal di koy jibbal li nga xam ne mooy yoon bu ñu jógee foofu dañuy àddu ci li nga xam ni euh, mooy euh, conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi ak ñi nga xam ñooy bañkat yi di activistes yi nga xam ni daal dinañuy wax ne lii li nga xam ne mooy gouvernement bu Sénégal dafa nenn nga xam ne ñooy activistes yi te loolee du yoon ndaxte ñoom ñooy dugal nañu seen loxo bu baax si xeexub li nga xam ne mooy ñu teg loxo kii di euh, taskati xibaar bi di Pape Alé Niang ak li nga xam ni mooy liberté de la presse nga xam ni mooy liberté d'expression si Sénégal jàpp ne day dellu ginnaaw ñoom ñoo nee ne jàpp nañ ne jaay doole bi ak nenn bi bër ëpp na ci eh, Sénégal te gouvernement bi eh, loole ba tey ci lay dox mën a te namul teggi tànkam te ñoom ñee duñu toog di seetaan dañ si def lu ñu mën bu dee xeex laaj dañu ko def ba ñu daal di eh, teggi loxo Pape Alé Niang te bàyyi li nga xam ni mooy yenn activités yi nga xam ni teg nañu leen loxo li nga xam ne tamit mooy Pape Alé Niang nga xam ni tey jii si alxa àllarba ji si ajuma ji au moins yemoo fukki fan ak juróom ñett di la 18 novembre taskati xibaar yi ak képp ku yëngu ci wàllum xibaar dañu amal doxub ñaxtu gi nga xam ne mooy préfet daan na autorisé boobule marche bu marche bu 15 heures jotee dinañu dox doxub ñaxtu ngir ñu bàyyi Pape Alé Niang ak xeex ngir liberté de la presse ak liberté d'expression fii ci Sénégal jàpp day dellu ginnaaw ah, saa su ne ah, bu ñu jógee foofu dañuy ah, dañ rek si ki nga xam ne mooy wàllum tàggat yaram ak ki nga xam ne mooy Sadio Mané bi nga xam daat na forfait si si compétition coupe du monde bi nga xam ni dina door si ayu bës bi ñu dëkkmal uh, foofee sa réewum Qatar moom mii di Sadio Mané ni ki démb ci uh, guddi gi la ñu xam ne ne moom mii dinañu toog ñetti weer yoo xam du mën def benn activité ndax daan nay def benn opération chirurgicale si gaañu gaañu ba nga xam ne amoon na ko loolu tax mu daal di forfait ba ñu nga xam ne ñoo yëngu si wàllum sport am na tiitaange am tristesse ak mbetteel si ki nga xam ne mooy Sadio maane mi nga xam ne mënatul bokk ci boobu lépp compétition gi ah, nga xam ne it mooy ah, Aliou Cissé askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñu ngi soxla football ñu ngi doon xaar keneen ku koy remplacer waaye jàpp nañu ne kenn ko remplacer ki nga xam ne mooy ah, Sadio Mané li si kanam réew li gët nañu teewlu rek tey déglu xool ndax dina soppi décision wala déet mbokk yi loolu lañ indiloon seen jotaay yëpp xibaar si Rio Plus Actu dinañ jaajëfal baax di leen wax rek ngeen ñuy gën di abonné ndax lépp xibaar boo xam ne dañ leen ko tënkal fii jërë ngeen jëf.